jërë ngeen jëf mbokk ñi siiwur ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di am mbégte jàkkaarloog yéen di leen ñaanal jàmm te di ko saako ci yéen di nuy suñu kilifa diine ak suñu kilifa aada yi di ñaan réew mi Sénégal yàlla na suñu borom dolli jàmm tey nag ñu daje ñu dalal suñu benn papa joo xam ne kenn doodu ko présenté ci aar waaye kenn doodu ko présenté biir Ramadan waaye tamit kenn doodu ko présenté biir Farmareen mu di père Alaaji ah, dañ lay bàyyi nga nuyoo ak ñii di la suivre ci People 221 waaw salaamaaleykum maa ngi seetaan ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi suivre di ñaanal kilifa diine yi ak kilifa aada yi di ñaan Sénégal yàlla def fi jàmm. amiin di ñaanal doomu aadama yëpp di naan leen nañ tàppee xol ndax àdduna dara desut fi lu ñu tàppe xol boo bokk ndey ak bàyyi. Mm-hmm. maa ngi ziar ñëpp ñi seetaan di kontaan ci ñëpp di ñaanal ñëpp di ñaan yàlla Sénégal jëm kanam. Mm-hmm. waaw loolu lay ñaan. ci barke yonent bi te na ko yàlla def. amiin mën na ko. amiin waaw amiin mais père père père père bi man man man tey bi taxawee nga waxtaan ni ma kii mooy sama doom kii mooy sama doom dama ne mais attends loolu nu mën a nekkee quoi sañse bi. waaw sañse bi nag deret la. waaw xam ñun ay géwél lañu. waaw te dañ géwél da nga géwél noble la. Mm-hmm. géwél. waaw noble la. binduñu ko ci alxuraan binduñu ko ci école. géwél maanaam bopp la rek. Mhm. bopp la. Mhm. parce que mun naa ne tey Sénégal boo xoolee tey ji bu ñu doon wax mun naa ne ñëpp presque ay géwél lañu. dëgg la de. yaa ngi dégg waaw donc sañse bi nag dama ñëw fekk ko ci famille bi ci sama papa ci sama yaay ci famille bi ma bokkal. Mhm. muy ay coon sekk ñun ñëpp. sañse rek lañ bëgg. maanaam ñun géwél daal maanaam ni ma la ko mën a mooy. lekk gu neex la ñu xam. ak sañ sa bu rafet ak xeeñ parfum bu neex. <laughs> d' accord euh, lan mooy sa secret lan mooy sa secret ba nga mën a ba nga mën a partager euh, ndaw ñi parce que yombul tey age bi nga am mën a wàccee sa bopp mën a uuf sa njaboot mën a mën a uuf xale yi aussi tamit mën a partager ñoom. Mm. waaw xam nga àdduna. Mm-hmm. boo ci nekkee dangay ngay jéem a dund xool ci li mag ñu njëkk ñi. Mm-hmm. daan def yaa ngi dégg nga ñëw def ko. mais boo ko mënulee sax da nga koy jéem âge euh, bi ma toll nii. âge mm-hmm. bi ma toll man maanaam mun mun naa ne waratuma woon sax yéeg kaw seen. Mm-hmm. mais maanaam ki sama jëmm jox na ma ko. te mu doon loo xam ne nag lu ma yàgg bëgg la lu ma yàgg gëm la parce que famille bu ma bokk ñëpp ay woykat lañu mm-hmm. man fekk jànguma ko bokk moon bale bokk moon fenn yaa ngi dégg man la neex. ma choisir ko mu nekk sama bopp géwél laa am naa dégg ma choisir loolu yàlla def nag moo am ñoo xam ne mu cee gën a pousse ba tey jii ma mën a bokk ak génération bi kaw seen mhm. parce que du tax ki ma doon liggéeyal man mu yar ma yar ma ci lépp yàlla na ko suñu borom xare àjjana mhm. muy Papa Thione mhm. kooku moo def ci man loo xam ne tey jii mënuma ko fayee lenn lu dul topp ci ginnaaw doomam bi nga xam ne moom la fi bàyyi mais bu doon man ak man la rek man pare woon naa ci musique mais damay gunge sam frère. d'accord dinaa ñëw foofu ci kanam euh, naka nga gisee aar aaru aaru aaru tey ak aaru démb lan mooy différent bi. yàqu aar moo yàqu. du ko yàq. voilà gis nga dafa am loo xam ni. ñun artistes yi chaque jour war nañ ciy bàyyi xel parce que tôt ou tard da nga fiy jóge te dafa am loo xam ne du fi jóge ba faw muy image image du fi jóge du deñ te tey lay gën a yokk kon donc boo nekkee artiste nekk ci nit du liggéey ak moom ak fi jamono bi toll nga war a xalaat ni ay kilifa ñu ngi fi am na ñu la bëgg yaa ngi dégg. am na ay borom aada yu la bëgg yaa ngi dégg am ay xale yu la bëgg am na góor ñu bëgg am na jigéen ñu la bëgg kon maanaam yow war nga jekkal sa toogaay mooy bu ma nekkee kaw seen war naa def loo xam ne bu ma ko defee dañ naan cim xamoon nañu lii mais aar bi yàqu na yàqu boo xam ne nit ñu ko neex ñu la neex la feccee mhm. lu la neex la ñuy soloo ngi dégg mhm. te loolu dafa doon loo xam ne image la suba say doom dañ koy seetaan say sët dañ koy seetaan donc say doom yi ñuy seetaan ak say sët war na doon lu rafet war na doon image bu rafet mais su fekkee nga bëgg ñëw sol solin bu ñaaw yaa ngi dégg wala nga nga ñëw def ci kaw seen lu ñaaw image boobu ñu jël ko bés boo demee ba jëm mag bañ tegal la ko yàlla mën na def nga am doom joo xam ne kilifa la. lay mhm. doon dañ koy tudd ëllëg. Mhm. est-ce que na nekk imam mën na nekk mi mën na nekk président léegi nga sol colin boobu nga def defin boobu. ëllëg sa doom doon dara mu am ñoo xam ne tey jii comme mooy la xew nii rek ay affaire concurrence ñu génne lépp tegal ko ko sa doom di ko gis say sët di ko gis di am lu leen metti kon donc dafa jar sóoraale loolu man saa saa yu ma yëgee kaw seen li ma war a def rek laay def wàcc bañ naa ko ba dootuma yàggati kaw seen parce que nit boo yëg kaw seen wala ngay nekk ci lenn war ngay sóoraale sa ginnaaw pour mu rafet ngir sa famille wala sa famille jabar ak say doom kon dama bëgg chaque jour rek ñu nekk ci kaw seen ñu koy rafetal. d'accord euh, naka nga gisee peccum léegi mi nga xamante ni ndeysaan maar day taali sax nit da lay romb di dem sax ñu naan xoolal fecckat day góoreeg tey nga xool ku ci mel ni yow wala ku ci mel ni Ameth Thiou wala Papa Ndiaye wala Papa Ndiaye Thiou wala Amady nga xam ne bu ne nee bërët sa xol day seddu guy par rapport ak. Euh, jeune talent yi léegi seenum pecc nga xam ne dañu dugg sax ñu leen yuuxoo doo xam jigéen lañ lan la ñu wax na góore. Mm-hmm. na góore. tolloo nañ fi ay jamono man jamono may yéeg kaw seen boo yéegee kaw seen lu nekk dinañ la ko wax. saa ngi dégg mm-hmm. di nga dégg moo bu ne mais jamono bii nii la waroon gën a rafet mu doon loo xam ne ñoom bu ñu ko fekkee sax dañ koy jéem a mu rafet. Mm-hmm. est-ce que nga comprendre góor da nga war a fecc fecc góor fii genn wàll gi fecc ñu musique xam nga dafa fecc musique. ak fekk sabar fecc bale yooyu yëpp dafa am am na ci ñoo xam ne tey ji bu ñu taxawee di fekk yow doo xam ne ñuy fecc lan la mais musique dafa am musique boo koy fecc xool ko ci ba jaan xol ko ci Ameth Thiou xool ko ci Armand Ndiaye xool ko ci Pa Moussa Sonko yaa ngi dégg am na yenn fecckat yoo xam ne bu ñu feccee rek da ngay daanu day leen ni kii musique lay fecc mais am na yenn yoo xam ne tey ji bu ñu yéeg bu ñu nee bëreet doo leen bëgg seetaan ndax lañuy fekkee doo ko comprendre kon kooku jugul pour jaay artiste bi nga xam ne moom la nekkal artiste bi way da nga koy jaay da koy jaay jaayaale sa bopp parce que boo ko jaayee rek jaayaale nga sa bopp mooy xamal la créer création mun nga créer benn affaire bu ndaw mu lëmbe àdduna benn rek affaire bu ndaw mu lëmbe àdduna mais bi bii booy dañ koy jëlee buzz. ñoom seen lépp buzz la. ba ci seen colin buzz la. seen waxin buzz la. seen feccin buzz la. te buzz am na ci côté boo xam ne bu defarul day yàq te li muy yàq sax boo xoolee ba xool mooy ëpp. d'accord am na solo ma ñëw ci sa diggante ak Papa Thione ban relation nga amoon ak moom. kooku sama lépp la kooku Papa Thione sama lépp la Papa Thione sama nijaay la sama papa la sama yaay la maanaam sama lépp la dama dëxiñ lépp parce que dañ ne dañ ne nijaay mm-hmm. nijaay mooy mooy yaay nijaay mm-hmm. mooy mm-hmm. ngi dégg kon donc moom sama nijaay la sama papa la sama lépp la man kooku laa xam kooku moo ma yar ci aar bi parce que à bi may xamante ak moom boobu ay 13 ans laa am relation papa Thione ak man ci sama pap ci sama yaay la jóge ki sama yaay yaay Thione yaay Assane Ndiaye ñoo bokk benn ndey kon deret la mm-hmm. Thione Seck doon sama nijaay ak xam bëggoon ma loolu nag bi ma nekkee xale mais ma tey ba ñëw ba fay ko bor boobu. Thione Seck ma su doon bëgg ay fecc kat ak ci orchestre am wala ay tama mas ko ci woon def. Mm-hmm. mais man damaa ñëw créer fa loolu. waaw. Pape Thione dama yàgg moom de. ndeysaan waaw ndeysaan. Mm-hmm. kooku bëgg naa ñu waxtaan foofu parce que tamit doon na lu am solo aussi tamit c'est normal que xale yi seetaan nii mën ko fàttalikoo aussi tamit. maanaam kooku dafa am lu mu def ci man kooku li ma mën a wax ci moom dafa bari trop am na loo xam ne sax wallaahi azim mënu ma ko wax ci moom moo tax may daw yu ci bëri nii barke alxuraan kooku daf ma yar ci diine daf ma yar ci jom daf ma yar ci maanu daf ma yar ci xam sa bopp ak xam fooy waxee mm-hmm. loolu Thione Seck da def ci man mm-hmm. parce que man dama ko tarbiyu mm-hmm. kooku moo tax ma xam lépp kooku moo tax ma xam àdduna maanaam ni ma la ko mën a waxee moo tax ma xam àdduna ndax moo ma yar mais dafa am lu bëri loo xam ne dama ko doon jàng ci moom ndeysaan dina dina diis lool nag ndax Papa moom doon na wax dëgg yàlla sunu papa xamante ni wax dëgg yàlla bi mu demee soxla ko nit gën a xam rek laa ko mën a fayee. mooy di dem armée rek di ko ñaanal. te loolu laa bëgg Sénégal di ko def waxuma sax famille Sénégal parce kooku doon na koo xam ne am na lu mu def fii Sénégal am na lu mu fi def du bari loo xam ne du ba léegi du deñ man ñaan ko rek laay def. Mhm. di ànd ak sama njaboot di dem armée rek di ko ziar di ko ñaanal. parce que loolu laa ko deseel moom wàccoo na ak man. d'accord xam naa dama mën a sori foofu noonu euh, tey ban relation nga am ak ki nga xamante ne tamit mooy soxnaam di jaaga. yaay jaaga kooku sama yaay la. ndeysaan. kooku moo tax ma tukki. yaay jaaga. waaw. Hmm, bu baax. ndax am na ay jamono mu metti woon Thione Seck daan yóbbu ñëpp jaaga moo tax ma dugg avion. te wallaahi azim ruslewu ma ko ci man bu ma toog man ma toog ñaari fan te dew ma kër papa coon seeti sama yaay waxtaan ak moom mu ñaanal ma te wallaahi azim xoolal yaay bu ñuy wax yaay dëgg dëgg dëgg ku yebu rek nga ñaan yàlla am yaay ju mel ni jaaga barke alxuraan mhm. li booy bi mel nii waali du ko mérito dafa am ñaanu yaay te barke Serigne Saliou Mbacke ki ne Diouf nga jóge ca àll ba sax ñëw tàlla ko sol mu ñaan man gëm naa ni day dal ndax sell na. te bëggul ku dul yonent bi te foo ko fekk kursan ci loxoom. Mhm. d'accord. kooku dama koy ñaanal dama koy ñaanal yàlla may ko gudd fan. bu mu fekkee ay njëriñu sëtam. li ngay wax noonu sax mu mel ni mën nañ ci seede tuuti parce que des fois muy génn ay xaaju guddi di dem ci hôpital yi. di di ko nettoyer di dem ci morgo yi di ko defar te bëggul kenn xam ko. kooku yemul foofu rek. Ah. kooku yemul foofu kooku day defal nit sans autant que doomu aadama yëg ko. Mhm. te fi mu toog lay toog def li muy def. Mhm. kooku xaalis bu ko waali jox da koy partager ay doomu aadama. Mhm. ndax jëkkëram dafa liggéey loolu ci moom moom mu ñëw gën a dolli. ñoom dañu xam partagé famille bi dañu xam partagé. ñoom loolu la ñu xam. d'accord euh, euh, xam naa dinaa ñëwaat ci famille bi sànq ci biir wax yaa ngi doon wax ni Papa Thione bëggul woon kuy yéeg ci seenam di fecc wala ay tama tey nga ñëw indi ko fa. est-ce que tamit yomboon na ak naka nga def ba xale yi tey intégré mën di yéeg ci kaw seenu Papa voilà gis nga tolloo ay jamono yoo xam ni boo feccee lu nekk lañ lay wax am na ñoo xam ne sax bëgguñu woon seen doom fecc. Mm-hmm. ma koy commencé ci Papa njaay Thiou Amet Thiou Amady Badiane ñooñu bu ma dëkkee Pikine dañ ma daan fekk sama kër ñu nekkoon ay fecckat nag xool ba léegi fañ nekkoon fa ne ba léegi te ku ne ci bërët rek nga xam ne kii musique la lay feccal dëgg la muy Amady Badiane muy Amet uh-huh. muy Arma yaa ngi dégg uh-huh. ñooñu dama leen xam bi ma dëkkee Pikine pour te dire nga xam ne ñun xamuñu du partager ak jàppale Papa Ndiaye dafa am benn jour Papa Ndiaye fecc rek la mënoon. Mhm. dama ko faawoon ci fecc. Papa Ndiaye dafa am benn jour ñuy joué ma ñëw woosu ko ne ko Papa Ndiaye mu ne ma mu dama ñëw laajte yaayam yaayam ne ma Papa Ndiaye ne ko mais yaayam xam ne li may doy Papa Ndiaye. yaa ngi dégg bàyyil boo jógee jël si sama doom jafe-jafe ma ne ko man xamal la man amul lu may wax ak yow yaa ngi dégg. woon ma papa njaay parce que dama ko miinoon dama ko yeboon nag quoi dama ko miinoon sama yaay la. yaa ngi dégg ma ñëw fi may waxee rek papa Ndiaye dégg sama bat rek génn fekk da doon fecc benn jour xaw ma tànn bi ma am xeer bu ko jam tànk. muy sox tànk bi noonu. ma ne ko papa Ndiaye mu ne ma ne ko dañu am spectacle Sorano ak papa Thion te du ñu dem. Mhm. yaa ngi ne ma du dem xaw ma lan ak lan ak lan ak ma ne ko booy mu ne ma naa ne ko boo paree fexeel ñu gisee. dama ñibbi si papa njaay fekk si ma sama kër fi ma dëkk. pour jàppale nit ki. parce que nit ki boo ko jàppale da nga koy jàppale ci côté bu ne. yaa ngi dégg ma ñëw ñu toog ma ubbi bi génne lii li ma sol ñu ñaan ñoo ko nuróolee ñoo ko nuróolee ma ak moom dem biñ demee teg Sorano ñu naan fecc kat coon sekk yi fecc kat parce que loolu laa bëggoon ci Papa Ndiaye. ñu toog waxtaan ma xam ne affaire bi am na ambiance tombeek ñu nekk Kilimanjaro jaaro ten ñoom commencé gu ñu ñëwoon sa yel jaaro ñu daan bu ñu ñëwee Kilimanjaro damay bëgg spectacle bi neex parce que damay bëgg suba ñu ne soirée Thione bi toj na dama leen invité ñoom ñëpp ñu ñëw Thione Seck dem ba benn moment boo xam ne nag doonatul man ak ñoom ñoom la ak Thione parce que fi ma waroon jaar jaar naa fi ba kole leen ak Thione Seck fay ñëw Thione Seck dafa ma woo ko man yàqalu ma dara loolu maanaam fierté la war a doon ci man yaa ngi dégg ñoom chorégraphe la ñuy def man damay fecc individuel kon yàq yàqaluñ ma dara. ñu continuer suñu liggéey maak ñoom. ba tey jii yàlla def li muy def parce que lii laa leen bëggaloon. ku ci nekk di ki dem fi ngay dem ku ci nekk di nga am li ngay am dimbali sa famille. dimbali ay doomu aadama. loolu rek laa ci bëggoon. sa diggante ak kooku sama xarit la kooku sama xarit la sama raq la Amath Thiou ba pare doon bañkat Amath Thiou coon sax da ko yàq ci benn côté ci dëgg. Thione Seck loolu lañu loolu la ñu kii ci dëgg ak maamam yaa ngi dégg mu doon sama raq boo xam ne jaar nañ fu ne def na lu ne ngir man kooku champion la champion la bëggoon Papa Thione trop bëggoon waa kër Papa Thione trop kafu ci réewu ci mu ñëw ñoo dangay nekk ak Thione Seck Thione am lu mu jàng ci yow am lu mu la jàngal te loolu mu la jàng noonu maanaam bu demee ba nekk ci rek daf fekk nga tarbiyu ko ci moom. parce que dalay seddu Thione Seck dalay seddu ci yoon ni dalay seddu ci dénk xaalis dalay seddu ci leneen ak leneen mais bu bu heure bi jotu wax jotee day amul mbool bu mboolam yëpp toogoon dala koy wax. mu wax la ko nga dund mu wax la ko ngay dee parce que il faut mu wax la ko pour ëllëg nga bañ ko defaat. ñun noonu lañ coon sekk yaree ci këram. d'accord fan yee passé am coow loo xam ne amoon na fi ah nga dégg kii nga xamante ni mooy sa frère Ameth Thiou génn wax doon wax naan euh, Wally sama rakk la mais kontaanuma ci moom euh, naka nga jàngatee wax jooju. non loolu moom franchement mënuma ci wax xam nga li tax mënuma ci wax dama xam Ameth Thiou xam Wally Wally booy bi dara nekku ci xool bi. billaahi wallaahi taalaahi te barki Seydina Muhammad dina lakk doomu aadama yu bari waali te mi ngi liggéey ajanaam waali waaw du question ay ay ay mooy papaam walla Kiné mooy yaayam wala ay faramaareen wala ay dee yàlla moo def li muy def ci moom ñu bëgg ñu bañ yàlla mooy ñëw fekk fu dara newul mu def fa dara d'accord Euh, Ameth Sy bu defee sorte boobu noonu ab digganteem ak Papa Thione ak yéen ñi nga xamante ne tamit ay magam ngeen indi ko ci aar bi euh, bu amee dara loo xam ne métti na ko ci ki nga xamante ni mooy rakkam wala doomam est-ce que rafetul woon mu ñëw toog ah ci famille bi waxtaan ko moo gën ko ñu koy génne ci réseaux sociaux ba muy agsi fii tey. logique loolu rek mooy erreur bi loolu kese mooy erreur bi parce que xam nga tax Ameth barke Seydina Mohamed. tëdd gi ma wax la benn affaire boobu pour nga xam Wally cëru cëru mag bu mu bokkal ndey ak la ko jox Wally Ameth mooy fekk Wally toog di waxtaan waxtaan bu am importance Ameth moo ko mën a yëkkati mu jóg du keneen ndax keneen amu fit boobu ci kaw muy cër bi ko jox xam fi ko teg moo tax mu jox ko loolu heure bi mooy loolu man sama gis-gis ndax man tey Wally bu ma amee lu ma naqari ci moom damay ñëw këram ñu toog moo ne ko lii waale lii ak lii ak lii moom bañ na ko du sigg xool ma waale noonu la mel ci ñun muy man muy Amady yaa ngi dégg muy muy Papis Ndiaye muy ñi nekk ci orchestre bi barke alxuraanu karim waale du sigg xool nit. bëggul ku nekk ci ci ci ci ci ci liggéeyam koo xam ne da am problème kon donc kooku boo demee bay wax ci moom surtout nga ni sa la dénkaane la. Pape Thione moo la ko dénk. te loolu muy metti parce que mënoo nekk ci béréb di fa liggéey te doo amul la metti mais da ngay dëxëñ loolu yëpp teg parce que yow wax benn wax da nga ne Pape Thione da wax boo xool ci waxu jam-jamu ginnaaw ñu lay jam ci ginnaaw sax mu ñool jële loolu nga indi ko nga teg. mais man ci suma gis-gis. barke Serigne Fallou laay xam man pour man. góob ba léegi nii Ameth bàyyi na Ramadane. d' accord dinaa ñëw foofu noonu euh, tey bi affaire boobu noonu affaire boobu noonu xewee euh, est ce que tey jéem nga ci woo sa frère Ameth Thiou jéem ci waxtaan ak moom pour jéem a xam lan moo ko metti ba mu taxaw di ko wax. xam nga wax bu jubee hmm, dangay bàyyi ba ñu tërërër di wax yëpp ñu wax ba pare man du ma xale mag laa man kenn du gis ci yenn yi nii. wallahi azim à part benn chaîne boo xam ne du ma tudd turam moom ma fi invité xaw ma ñaari chaîne. Ah. yéen la chaîne bu nekk woon ma pour waxtaan ak man mais man dafa am loo xam ne dama koy jëm a dombala sama bopp. dama koy jëm a daw sa bopp tuut da ngay xam sa lekk. yaa ngi dégg diggante Wally ak Ameth Thiou man El Hadj Mbaye sax barki sëñ Fallou xajuma ci. la laa ci wax. lan laay wax. d'accord dama naan amecu lii wala ma ne waale lii société la société amecu la li ma koy mu ñëw mu liggéey ñu liggéey ndax dafa am ko dénkoon te yaa wax ñëwoon ñu matale liggéey boobu. man wallahi azim amoon nañu benn bi nu wax. mais man bis bu ma toogoon wax wax ji frenku laa yem ndax ñun ku ci nekk rek xam nga li nga dund ak Papa Thione man dama dund ak Papa Thione dama dund moom muy metti dama dund ak moom muy neex yaa ngi dégg kon bu la dénkee teel dénkaaneem parce que ji ñu ñun ñëpp lu ci waaye am rek ginnaaw yàlla ak yonantu ba Papa Thione la ku ci jógee tey jii sax nekk ci waali sax Papa Thione la parce que moo fa liggéey loolu moo fa saxal loolu ba mu meññ wax kon ku ci nekk na nga ñëw jël li nga ji li nga moom te teg ko ci yar te ko ci waxtaan gis nga waxtaan dafa am solo àdduna lépp lu fi gis waxtaan la du ay mer du ay lii nii nii parce que fi Sénégal la fii da ngay toog ak nit waxtaan ak moom benn waxtaan sax mu enregistré ko dem te ko fekk ci biir wax foofu ci biir foog nga ko doon waxee at Sénégal graval ko yóbbu ko foo xam ne du foofu mm-hmm. man li ma koy digal mooy que mu ñëw bàyyi lii muy def nii ñëw accompagner frère am accompagner doomam man Ameth Thiou man Alaaji Mbay loolu laa lay ñaan nga ñëw accompagner sa frère accompagner sa doom parce que yow yaa taxaw yaa wax loolu ñëwul nga accompagner ko heure waxtaan bu jotee ñëwal nga waxtaan ak sa raq yow xam nga waale xam na waale xam na yow xam nga man loolu laa lay digal en tant que frère en tant que copain en tant que doomu ndey man loolu laa bëgg te loolu laa lay ñaan parce que man amet ñaar rek laa la wax Waly yaa ko yar xam nga Waly Waly xam na la Waly xam na li ngay bañ yow xam nga li muy bañ xam nga li muy bëgg xam na li ngay bëgg ñëwul nga jàppale sa frère ngeen liggéey moo gën yii nii nii nii di may sénégalais yeeg noonu li ñuy wax bugguma loolu man gëwuma loolu boo nee parce que yow mënoo ne tey ngay bàyyi daan ba pare jàpp pap euh, jàpp Mouhamed jàpp Aline jàpp Aïcha jàpp Bintu jàpp Babacar jàpp Kiné ah, ñooñ ci société bi lañ bokk ñooñ ñëpp société bi lañ bokk waaw ah, kon ñëwal nga continuer sa société bi nga nekkoon man loolu laa lay ñaan waaw. mu mel ni sax bi mu ko njëkkee wax noonu sax ñëpp dañoo jàppoon ni wax jooju noonu garaawul woon mais mu defaat beneen sortie bërki dem avant muy voyager. mu waxee noo xamante ni comme si que dafa dafa dafa mere booy bi parce que yaa ngi koy wax léegi tudd na ba pare tuddul turuwaali muy wax ni affaire bi daf ma metti dem ba affaire bi egg ci yaayam muy concert bu nga xam ne moo amoon Kër Massar ak la fa xew que ni moo ko xamal ni waali dafa ñëw fii di la gaar waale est-ce que wax ji coow li jaroon na muy agsi fii. jaru ko ak yooyu jaru ko moom xoolal même bu fekkoon yaayam da ko wax loolu moom waru woon taxaw sax di ko wax moom bu mu wax loolu na ñëw continuer liggéeyam te jour concert boobu billaahi wallaahi taalaahi man maa ngi xalaat ne Ameth Thiou dina ci li ma jàpp man sama xel parce que fii dara xew fi dara xew fi te waaye dafa doon nit koo xam ne billaahi wallaahi taalaahi man gëm naa ne lii may def nii sax di ci wax nii neexu ko. dëgg la xam naa ci dara. bëgg ko. Mhm. man xam naa ko. Mhm. bëgg ko même boo ko defee ba pare ñëw këram sax maanaam am na nu muy demee. doo fa jëlee lu la neex kon kooku nitu jàmm la. Mm-hmm. te ci jàmm rek lay dox. ndax billaay wallaay am na ñu bëri ñoo xam ne bu ñu amoon ku mel ni waali barke alxuraan karim leneen lañuy wax ndax yàlla moo ko def lu muy def tey ginnaaw yàlla ak yonent bi maanaam am na yenn euh, yenn solde yoo xam ni ñun ñëpp ña fa nekk ñëpp ci waali rek lañ ko mës a téye. te waali dina la topp guddi dina la topp bëccëg dina xam ci nekk dina xam ci looy dox buggul sax tey jii nga dugg fenn mu am bët bu ñu lay xoolee te waali balaa nga ko doon xam nga toog nekk waxuma ne sax nga bokk ak moom ndey ak baay nga bokk ci orchestre mu toog fenn rek nit gis boppam Baay Fall la. ndeysaan. barke Serigne Fallou soxnaam noonu la mel jabaram ku man billaay wallahi taalaahi man xam soxna Aïda rek laa koy xoolee ak waali Kiné ak papp Papa Thione jàpp julli ñaana seen borom kër doo leen dégg ci dara kon yàlla bu la mayee nga nekk ci ci ci société bu mel noonu am na beneen taxawin boo fay taxaw ñu nga taxaw taxaw fu kilifa ne xam na la xale yi xam nañ la xam nañ yow bañkat nga yaa ngi dégg mais dafa am yenn yoo xam ne pour man dara jaru ko fi pour man dara xewul barek sëñ Fallou pour man dara xewul ba léegi man pour man Ahmed mi ngi daan Wally woowu ko dàq ko keneen woowu ko dàq ko wala mu nekk njumte man pour man njumte la na ñëw continuer mu jàppale frère am parce que nit doo ko yar sa mbote doo ko yar ba mu toll fii maanaam doo ko sa mbote doo ko yar ba mu nekk kuy nga bëgg koo jël jàllax ko kon ana yar ba ana la nga defoon ci moom ñëw nga continuer liggéey sa liggéey nekk ak sa frère jàppale ko adduna loolu kese la kenn xamul adduna bi jeex na ba pare sa ay dara jaratu fi metteel barki Seydina Mouhamed lu yóbbu Papa Thione yóbbu Ndiaga Mbaye yóbbu keneen ak keneen ñun ñu fi bàyyi kon am na yenn yoo xam ne dara jaratu ko fi ci àdduna d'accord tey yéen ñi nga xamante ni yéen a nekkoon ak Ameth démb yar ko indi ko ci aar tey mu nar a demee nii est-ce que dina leen neex. man neexuma man neexuma gënalu ma neexul waali gënalu ko. képp ku nekk ci orchestre bi neexu la gënalu la moo ko ay frère ñoo fa nekk moom sama rakk la Amady sama rakk Armand sama rakk mm-hmm. yaa ngi degg te boo xoolee waale dafa nekk ni koo xam ne moom day bëgg yaatal billaahi wallahi taala am na ñoo xam ne liggéeyuñu ci faramaaren liggéeyuñu ci Ramadan te waale da di fay chaque soirée da leen di fay ay xameel la ñu mu yàggal yaa ngi dégg ay xaritam te billaahi sa saa ñu kiyee soirée waale da leen di fay ku ci nekk sa enveloppe lañ lay jox mais kooku waale bu sa xoroon du ko def mais mi ngi xool ni ñëw fay ñëw di dajaloo yëpp ku ci nekk rek am nga benn yaakaar ci moom te du tas dafa nekk nit koo xam ne du tas yaakaar kon kooku boo nekkee sa raq nekk sa doom ñëwul nga jàppale ko. mais tamit jàppoon ni problème bi dafa nekkoon problème bu yàgg parce que ci ay waxam mu ngi wax naan. am naa ñaari soxna Papa Thione moo leen ñaani samay ñeenti doom Papa Thione ñëw na fa sama ñaari mag gaañu nañ waali ñëw fa ba tey tegu fa tàngam extra est-ce que nekkul lu mu dencoon lu yàgg. yooyu yëpp sax du wax pour man yooyu yëpp du ay wax bul xool loolu. Mm-hmm. maanaam ku fàttaliku dangay ngay soxor ku fàttaliku da ngay soxor bul fàttaliku ñëwul nga man li ma lay wax mooy nga ñëw accompagner sa raq. parce que kenn du ne xamoon naa ko wala fii lu ne am na fi ñëw nga accompagner sa rakk si parce que tey ji doo liggéey moom ba mu toll ni âge bi mu toll fii nga ko waroon gën a mënee jege sax pour gën gën koo accompagner gën koo téye ngir lan ngir baayam ngir lan ngir yaayam ngir lan ngir famem man loolu laa koy digal. d'accord tey ban taxawaay ngeen ci am pour yéen ñi nga xam ne yéen mag ñi ngir dox ci ay tànki jàmm ak salaam. mais waxtaan ci dañ ciy waxtaan de. waxtaan ci mu ñëw continuer liggéeyam mooy li ma wax nii rek dañ ciy waxtaan mu ñëw continuer ak liggéeyam kii waali amul problème waali du jàpp nit waali te nga koy gën a mere tey la lay gën a def xarit. parce que seen complicité sax am na ci benn soirée boo xam ni Ameth bi mu ñëwee waali moo yëkkati yéreem jox ko te ñaare dañuy wax ni mbërëg fecckat moom wala mbërëg ku siiw seeni i yére moom ñaare. moo xam benn <laughs> affaire duñ ko partagé waali ah. bu amoon nu mu mel. du sol yére Amet. Amet du sol yére Waly. waaw du sol yére Waly. Waly du sol yére Amady. Arma du sol yére Waly. Waly du sol yére Arma Ndiaye. mais moom xolul loolu. moom maanaam barke Serigne Saliou Mbacké man booy bi pour man man damay toog léeg-léeg nii ñu toog ñii ñëpp di waxtaan ci biir gàlle bi ma toog du bàyyi ci booy bi xel. man ginnaaw yàlla du ma du dara de. sama raq la mais man gën naa ne am na may yàlla. am na lu ko yàlla may. Mhm. te nit nag bu la yàlla mayee dara. ba adduna bi yëpp xam ko kooku boo nekkee ak moom da nga koy jéem a tarbiyu mhm. ndax puus mu dem puusu mu dem ñoo puusal rek. Mhm. ndax loolu yàlla moo ko def ci moom. boo ko puusee mu demal boppam boo ko puusul mu demal boppam kon ñëwul nga puus. d' accord am na solo mu doon ay révélation yoo xam ne mënuñ ci woon a bañ a dugg ah euh, ma ñëw ci événement yi événement yi génn génn nañ Bercy Kër Massar ah gis ngeen keroog jéewaat ngeen tey yéen a ngi war a demaat jeu ji nii boo leen paree war a jéewaat Bercy war a jéewaat Bercy Pikine parcelle tey tey programme yooyu noonu. <laughs> kon xam nga ni kii ku jar a jàppale la <laughs> ah nañu <laughs> waxante dëgg rek ku jar a jàppale la te maar du sonn ah keroog fekk naa ko terrain ma naan waa mais grand bi moom ak programme mi événement mi H24 tere mu ngi terrain bi di football. baa xam. billaay ku yóbbu nga def ni waali. ndeysaan artistes yëpp nag laa lay wax. ku yóbbu rek nga jéem def comme waali. Mhm. yàlla daf ñu bind. sàq ñu sàq ay mala. lim ci gën a bëgg yëpp mooy doomu aadama. tabaski du lekk yàpp ak rey xar rek. ndax mun nañ am problème. Rousseau baalante àq ba jour tabaski ñu dajee nga baalu ma àq ma baalu la àq. ndax àq boobu la suñu borom bañ. bëggul mu yegg si fële. ndax ku ci nekk da ngay wax ba wax erreur. te fii Sénégal loolu da fi bari. est-ce que nga mais ku yàlla jël ba def loolu ci yow. na bi yëpp xam ne kii yàlla moo def loolu ci moom. waaye sa waay nañ ko jàppale ñaanal ko gis nga événement yi ne dara xewagul de billaahi wallaahi man Alaaji Mbay gëm naa ne Waly woyagul te yàgg naa ko wax ay xaritam Waly woyagul ci kanam tuuti nii nii nii nii nii ci kanam tuuti ga doog a xam ne nag booy bi moo nekk waykat kon kooku na ko jege. parce que ni ngi dofuñu concert yi nii nii nii nii sant yàlla la mm-hmm. ko liggéey moom moo ko liggéey stafam ak ay musiciens ak ñaanu yaayam ak barke baayam ku am loolu dara desatu la dara jomb la boo amee ñaanu yaay am barke baay adduna bi ñëpp di la ñaanal dara jomb la chaque jour sax mun ngaa jouer concert ak soirée chaque jour ndax yàlla def ko ci xolu nit ñi waale fu mu nekk waale bu dem diggu géej lal fa baas nit ñi dinañ jël gaal joow fekk ko fa yàllaa ko def kon kooku boo nekkee moom amal noo koy taxawoo man de lenn rek laa mën ci moom mooy di ko ñaanal liggéeyu ndeyam ak barke baayam yàlla may ko gudd fan ak wér li mu bëgg ci musique bi moom moo ko xam mu nekk ci biir xolam yàlla na ko suñu borom defal parce que bu ko yàlla defalee rek defal nañu ko ñun defal na ko Sénégal yëpp defal na ko Afrique yëpp te yàlla mën na loolu te moom ci boppam du xale dafa màgg nag Wally bu ko kenn jàppee ay xale de xale moo màgg. ndeysaan dëgg la de. kilifa la mais da ngay am sa doom. yow man woon naa la sama doom. te tey bu ñu àndee looy wax sama frère la. sama doom la. Mm. kon donc man màgg naa. yaa ngi dégg. Mm. waaw nit nag boo màggee dafa am nooy doxalee. kii dafa màgg. am feneen fu mu bëgg dem. ak lu mu dimbalee askanam. kon kooku dañ ko ñaanal. Mm. ma gudd fan laa koy ñaanal ak wér ak yàlla lafal ko cat. ñun cat mooy suñu problème ñun jugal nga dem fu la neex dem liggéey dem def demal fu demal ba kiñ def say xar fa a ñëw zéro ñun cat mooy suñu problème te yàlla nañu yàlla na yàlla musa ci cat man loolu laa koy ñaanal di ko ñaanal yaayam jigéen ju sell jigéen ju sell jigéen ju baax jigéen ju am diine Wally yàlla barke yàlla xolol Wally ku yóbbu sa di ko ñaanal bu la yàlla mayee jabar joo xam ne foo ko fekk kursañ ci loxo bi yàlla may la yaay joo xam ne foo ko fekk kursañ ci loxo bi sa papa kenn xamee ko lu dul diine ba mu génn aduna ko ku yóbbu ñaanal ko ak xolam moom xolam Wally waxuma sax ay contek mais xolam rek barke alxuraanu karim mun naa tax mu am lu ne te dara xewagul nag mhm. ku yóbbu tee de sa li ñëw ngi ñëw de. d' am na solo moom laa daloon fii maam mbégte jàkkaarloo woon ak moom di nuyu sunu yaay jooju nga xam ne mooy jaaga vraiment euh, li muy def ci lu baax te kenn xamu ko moo gën a siiw sax euh, jaaga mën naa ni man ba ma ko dalee dégg ba tey su ma jumul sax benn yoon laa mos a jàkkaarloo ak moom te chaque jour mu ngi def lu baax te am na ñoo xamante ni lu ndaw bu ñu ko defoon ci Sénégal adduna bi yëpp wër ko mais tey day dem foo xamante ne ay xaaju guddi man des fois damay jékki dem ci hôpital yu mag yi ma ñëwee ñu ne moo fi nekkoon te tey li ko yàlla may ak fi ko yàlla tag ak daraja bi day wàccee loolu damay ñëw ñun ma yaay waali moo nekkoon ci hôpital bi moo nekkoon ci morgue bi donc mu doon ay gestes yoo xamante ne des dama naan xaw ah ma dama bëgg ay vie des fois dama naan gars mais est que doo ay quelques témoignages ci mama jaaga sax mais dañ naan ma yii maire bi bu ñëwee fii sax taxi sax lay jël chauffeur sax kenn du ko topp bëggul loolu. waaw donc mu doon ay témoignages yoo xamante ni euh, dañ ñu woon dinañ ko sànni ci moom ah, kontaan tamit ci yow di ñaanal ah, borom këram yàlla sunu borom xaare ko àjjana di ñaanal booy bi tamit yàlla may ko mu eggali ak ak ak sagoom. man de gëm naa ne Papa Thione ma ngay àjjana. non ma nga fa ndax xam lu tax. tey boo duggee bii këram ki ci gën a tuuti gardien yi jànka yi fa nekk ñëppay julli di jàpp. Hmm. ki ne la fa Papa Thione bàyyi woon tey la ko gën a téye. jàpp julli la xam. Aïcha boo ko joxee kaamil mu jàngal la ko Bintu boo ko joxee kaamil mu jàngal la ko waa kër Papa Thion ku leen jox kaamil mu jàngal la ko. ndax Papa Thion moo saxal loolu ci seen xol ak yaayam. Mm-hmm. ak seen yaay. xam nga boo amee doom yu mel boo mel noonu da ngay bëgg say doom mel noonu. Mm-hmm. partagé la xam jàpp jaamu yàlla du kenn du lañ gis ci yeneen yi ay soirée gi yëpp xamuñu ko. te tey am ñoo xam ne fu ñu jógee seen seen waa kër jóg. Mm-hmm. Thione Seck yarul leen ci loolu Kiné yarul leen ci d'accord am na solo am naa mbégte jàkkaarloog yow. waaw ah. di kontaan ci recevoir bi yow moom yaa na a naqaree jot sax waale. ndax moom maa ngi woote. non non parce que xam nga tax <laughs> billaahi du ma la nëbb de lii nii balaa ma koy def xam nga lan roon hmm. comme ni ma daan def ci Papa Thione bu ñu ma invité ci dama dem laaj ko ba pare dama doon dem ci jaaga laaj ko ne ko télé tel kii dañ ma invité. waaw est-ce que parce que tàggoo la. mais kon yoon bi euh, xat na ni ñu war a jéggi Pikine préparé tamit fële euh, euh, waaw kon donc damay gàtt damay damay def lu gàtt mhm. te du tey tamit bu ma paree dinaa ci waxtaan ak moom wala moom dina seetaan lii waaw mais nag man dama waroon dem ba ci moom tàgg koo pare ndax sama kilifa la d'accord am naa mbégte tey lan ngay tàggatoo ci émission bi waaw di tàggatoo nag di ñaanal artistes yëpp man amu fenn sens interdit mm-hmm. damay ñaanal artistes bëgg na nga delloo si waat seen xel jéem a bokku ndey ak baay liggéey loo xam ni génération bi di ñëw ci ginnaaw est-ce que nga comprendre pour ñoom la donc maa ngi ñaanal sama raq sama doom sama xarit sama patron di Wally Seck yàlla na suñu borom may gën a yokk xolu muñ yàlla na suñu borom def li gën a bëgg ci aar bi ak fi nga bëgg yóbbu musique ak loo jàppale njaboot gi ak loo jàppale ad Sénégal ak loo jàppale àdduna maa la koy ñaanal te yàlla na ko suñu borom def te gëm naa ne yàlla dina ko def ndax yàlla dina la fay sa xol sa soxna baax na baax nga te loolu ñuy ñaan continuer continuer sa liggéey liggéeyal lii ñëw nag mi ngi ñëw yàggatul dara Madia Sy yàlla na jàmm. allahumma amiin. di ko defal yéen tamit yéen ñi nga xam ni. sunu waay nga. waa 221. people ndeysaan. yéen ko leen jël image image am baaxul. <laughs> ndeysaan ndax da ngeen bokk ci ñun. dëgg la de sama père sama waa ji. dañ nekk Gambie. Uh-huh. te dara ñaawul. Uh-huh. dégg naa la mu fa woon nag. non non non ñoo bokkoon fi ñu nekk. dégg naa dégg naa la mu fa nekkee woon. eh ci jàmm rek lañ nekkoon. tranquille non père da nga koy suturaal non non non non kenn kenn duggul kenn génnul. non père da nga koy suturaal mais waaw waaw sama gars yi nag <laughs> yow nag ku baax nga. jërëjëf jërëjëf yow ku baax nga. jërëjëf ku yaru nga. jërëjëf jërëjëf. parce que tey ji bu la neexoon. Mm-hmm. luy du la ci fekk. mais déplacement bi nga déplacé nii rek. Mhm. cër la. yaa ma ko nangul. waaw parce que non parce que il faut a ma nangul la ko. Mhm. parce que tamit nit nit rek nga mën a doon. dëgg la gënuma la. dëgg la gënuma. dëgg la mais ñun dañoo bokk liggéey bi. dëgg la jërëjëf yal na yàlla rek di rafetal lépp. jërëjëf Sénégal yal na fi yàlla def jàmm. allahumma fi nar a indi leneen lu dul jàmm. yàlla na këpp sa kaw mais yan ñun jàmm la ñu xam ndax kilifa diine yi nga xam ne ñoo fi nekkoon dafa am lu ñu fi bàyyi mm-hmm. yàlla na yàlla defal jàmm Sénégal defal ko kilifa yi nga xam ne ñoo fi ne mm-hmm. Sénégal jëm kanam. allahumma a jërë ngeen jëf maamoon mbégte jàkkaarloo ak moom di ko sant ci disponibilité bi di a jox yeneen dig daje suñu yeneen émission fii ci People 221 di leen jox yeneen dig daje aussi tamit fii ci Pikine léegi incha allah. yee Pikine day tooy jëw. jërëjëf préparé le am ngeen coow lu toll ni màggalu Tuuba. <laughs> jërëjëf booy baa ngi ñëw de farek rek.